foofu laa lay expliquer. gis nga man sëñ Alaaji Baara. doomam sax dëgg la ñoo màggandoo ndar. nan la tuddee ci sëñ Galas sëñ Galas Kaltoum. waaw ñu ngi koy siyaar baax. waaw waaye man xawma ma ko woon. man man sëñ kii laa kii laa mos àndal Balde benn. fekk mu ne ma euh, dama dégg ne sama benn xarit nag moom ma ko présenté woon ndeysaan gaañu na mu ne ma dama dégg ne du ma juumul daal xëy na 2002 la wala 2003. mu ne ma damaa dégg da nga jege sëñ bi dama bëggoon ma ànd faak ma nekk ko déet kay demal rek mu ne ma déedéet yow laa fi bëgg a àndal ma ànd feeg moom ci yoon yi mu ne ma mais est-ce que xam nga kan moo topp ci gannaaw sëñ bi ma nekk sëñ bi ka amul ku topp ci gannaaw <laughs> mu ne ma dee ku ñu wax alaaji baar la ma ne ko kuy <laughs> ne wax comme xamoo ko mooy vice xalif ma ne ko gis nga Ablaye ñun amuñu yooyu ay vice xalif ak yooyu léegi bi ma yeggee ba ci sëñ bi ndax man fu ma daan dem damay tàggu sëñ bi mm-hmm. ma ne ko bi ma ko waxee ne kii de sama xarit la mu ne ma ah moom de defuma nag promotion wu kenn mu ne moom de saalaw de këyit gi jox borom Touba dëkk bi moom mi moo ko defar man li sëñ bi wax xaw ma ko biñ paree ba dem foofu ma ne ko waa sëñ bi lan lay wax mu ne ma pourtant sëñ bi li mu lay wax décret bi jox sëñ Touba man maa ko pré def rapport de présentation bi titre foncier bi mhm. ma ne ko ah bon mu ne ko waa sëñ bi kon xam mu ne ma man de chef li a jaaxal bi ñu dellusee mu ni ko sëñ bi man de Mbàkke kii de nee na pour nga ñaanal ko dafay def politique mu ne ma ah moom de dina am sax lu weesu njortam. muy Abdoulaye Balde. waaw Balde mel na nettali dina ko sax tele maanaam ka waay mm-hmm. ma sëñ bi moom de nee na dafa bëgg seeti ku ñuy wax Alaaji Baara. sëñ bi daal dina teg. ba ci mu ne ma da koo xam mu ne ko Mbàkke man de xaw ma ko. man li ma xam fii dafa bëriwul ma ni ma tourné ne Balde ko kan mooy fa ci am waajuram mu ma doomu sëñ Fallou ma ni sëñ bi nee na doomu sëñ Fallou la bi ne ma ah, mën ngaa dem seeti ko hmm. bi ma nee tëll nuyu ko ma gis ko mu mu xam nga moom nitu neen la woon mu daal di reetaan ñu ma sàllaw di li ngay defal sëñ bi yëpp si yëg nañ ko daal di ñu toggal bu ñu wax ñu toggal ñu bañ ba pare mu ne ñu ndeetaa mu tooñ ne ñu léegi nag da ngeen di dem ci barabu sëñ Fallou waaye bu ngeen demee rek du leen xàmmee de dangeen oh. ak Alaaji Baara moom ñu yónni <laughs> ndeetaan ñu dem foofu man ak Balde maanaam ma amaat chance tam <laughs> jóge Inde hmm. def multi stop yegg Paris rek tourné rek ma dikk ñaa dugg ci ci avion bi ànd ak may mën a solandir bu mu juumul daal xëy na deux mille huit wala deux mhm. ñëw daal ne ko waa ministre d'état lan ngay def bi mu ne man xalif général moo moo jaaroon fii da doon dem màkk xaw ma waaye da day dellu Dakar ma am chance toog première den ak moom. den ak demi maa moom ci avion bi. <laughs> mënuma ngepp ci avion mais kooku moo baaxoon keneen dégg nga mu may nettali nag ci la ma xamal sax ni dawal na sëñ bi daanaka sept ans mu ne ma sëñ bi moo ma waxoon ne di nga doon borom Touba sëñ Saliou de mhm. leeral ma lu bëri nag ba nga xam ne man sama bopp ndax ñun xam nga gannaaw sëñ bi dañu xawoon retiré wu tuuti ndax xam nga àdduna daf ñu bettoon. Mhm. ñun dañu jàppoon ni sëñ bi cent ans yi dana teg boo xoolee sax ci atu jullit ëpp na ko. Mhm. Mhm. mais ñun loolu lañu jàppoon. donc bi demee dañu xawoon kii waaye nag moom mu doonoon ku yaatu. xam nga ñëw ibbi sëñ si pour accélérer.